amit amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen nga xamante ni yéen a safoo la Equivox TV bienvenue tey ñu am mbégte ak kontaante dalal ki nga xamante ni moo di le président des amateurs mu di El Hadj Doudou Diagne Diecko mu doon koo xamante ni kenn du ko dootu ko présenté ici au Sénégal waaye nag li tax ñu seet si ko daf di dafa am lamb joo xam ne dañ ko tuddee El Hadj Papa Dieng kooku nga xamante ni ancien jour la woon mais tamit mu yëngatu ci lamb ñu war a ñëw waxtaan ak moom mu def ay témoignage ci ki nga xamante ni moo di El Hadj Papa Dieng euh, El Hadj ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay di nuyu képp kuy ku nekk si làmb mhm. waxuma la ak sport mhm. di ñaanal réew mi yàlla defal ñu jàmm mhm. may ñu wér gudd fan njabootu làmb tamit yàlla may ñu jàmm ak wér gi ku si feebar ñu ngi ñaan yàlla nga wér ak jàmm ñu nekk si prison yi ñu jénn dellu seeni i mbokk di nuyu axlu làmb yëpp xam ne tey bés bi nga xam ne tey si lañ jëm muy le 19 incha allah incha bés bu rëy la alaaj Papa Dieng rek doyoon na. Mhm. waaye combat yi rek dafa neex. Mhm. combat amateur la. Mhm. moo tax làmb ji ñëpp a ngi koy xaar incha allah. bu samedi ñu dem fa waaye alaaj Papa Dieng mi ñu tuddee làmb ji. day sportif. xam football xam làmb. écrit Fass Mbaye Guèye mënoon mbërëm. ba Moustapha moom Fass rek lay supporté. mu xam làmb nag boole si ful ak fayda. buy def liggéeyam doo xam fu mu far. Mhm. day def liggéeyam bu jeexee mu dem. Mhm. mu xam sport xam football doon supporter gore mhm. ñëpp xam ko. waaye nag mu am ay xarit jaraaf. ba day dem bay supporter gore ak jaraaf. nekkoon na entraîneur football dëgg yàlla ñu bari xam nañ ko si football. muy nitu làmba tamit daan ànd ak ñoom Ndiob Diaw ñoom si yàlla Zesman. ak euh, ki nga xam ne tey mooy Ousmane Bari ñooñu ak Assane Ñaan yàlla ko yàlla yërëm bari na ñu bari ak ñoom Boy Naar Fall ñoom Birahim Ndiaye Mor Nguer ñëpp xam ko kon nag tey bu nekkee foofu ñu tuddee ko bës mu liggéey làmb lu am solo man mi keroog deux mil bañ may fal président des amateurs moom ma njëkk a jox micro dugal ma en direct Sud FM. si mhm. journal mhm. ñëw suñu assemblée générale. bi mhm. xam moom la ñu njëkk a fal. loolu muy lu rëy parce que làmb moo ko ñor. Euh, fépp fu làmb woote manga fa di liggéey Sud FM information bu mu am dina ko jox Sud FM. muy nit ku baax bëgg njaboot bariwul taxawaalu. ful la lay dox. ku ko jox cër mu jox la cër. ku ko joxul cër loo mën na xewle. yëgaloo ko. Mhm. ak loo leen séq. Mhm. doo fa gis papa ji. Mhm. ko ah. fulla la si boppam. mais tey mu mu mu doon koo xamante ni nit ku yàlla baaxal la ak fi nga xamante ni Sénégal toll na fi tey en tant que président des amateurs ñu jël làmb joo xamante ni ci diggante Mama Lamine ak Garga 2 tudd ko Alaaji Papa Dieng loolu lan la def ci yéen. waaw maam loolu noonu la ma ne la combat yi combat amateur la. Mama Lamine Papa euh, Mama Lamine ak Garga 2. amateur dañ ko yàgg bëgg xale yi mën macha allah. moo tax ma la làmb ji incha allah amateur yëpp ay dem. parce que mhm. dañoo bëgg xale yooyu mhm. dañoo mën bëri. Mhm. xale yu am gannaaw lañu. moo tax bés boobu Papa Dieng boo ko tuddee. mérité na ko parce que moom dafa bëgg mbër buy bëri. bëggul mbër buy arrière. bëggul mbër buy dellu gannaaw bëggul mbër buy machine. li mu bëgg si bëri rek fulla ak fayda jom. moom la Papa Dieng am. Ah ku bëra daan daan ku waratu daan daan Papa Dieng ku am fulla la. boo amee bés yëgaloo ko doo ko fa gis mhm. donc euh, boo ko boo ko wanee loo xam ne du ful ak fayda mu bàyyi la mhm. ku bëgg a cër la mhm. ku respecté boppam la lan nga jot jàng ci moom ci li nga xamante ni liggéey na ko fi ci biir Sénégal liggéey na ko mooy wax lu baax wax lu rafet wax dëgg tamit te yàlla tax dina gis loo xam ne ni bu ko waxee xëy na mu ñaaw mais dina jël borom wax ja waxtaan ak moom kooku rafetal wax ja loolu mooy alaaj Papa Dieng lu baax rek la xam xamul lu bon lu rafet la xam dëgg yàlla nitu dëgg la eh, nit ku baax la nitu sutura la nitu jom la nitu fulla la ak fayda parce que dafa yor entreprise am bëggul ku koy toroxal day liggéey pour am lu muy am même boo ko naree may xaalis mu ne la man dama yor entreprise tag maa jox liggéey ma liggéey moo gën nga may xaalis dëgg la man ñaq am dara moo ma gënal kooku ku bëgg boppam na ku am fayda en tant que président des amateurs ñu war a jëm ci làmb joo xamante ne ju mag la muy le 19 euh, ci diggante ki nga xamante ni moo di euh, Franc ak ki nga xamante ni moo di Tyson 2 ban message ngay laaj li nga xamante ni ñooy dem ci euh, ca arène nationale parce que ku ne xam na ni combat boobu du combat bu ndaw. li ñuy xamal rek mooy supporters yi. Mhm. ñu xam ne kii bésu jàmm la. Mhm. ñu leen nitu jàmm lañu. Mhm. Papa Dieng de nitu jàmm la. ci jàmm lay dox. ñun amateurs yi dem si jàmm la ñuy dox. moo tax ñu bëgg képp koo xam ne nii yaa ngi dem làmb ja ànd ak yar ak ful ak fayda mhm. ak yaru mhm. xam ne làmb foo rek la mhm. mbër yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñooy mayante xaalis ñuy ñaan ku nekk dem ak jàmm ñu bis jàmm sécurité bi nag dina doy police ak gendarmerie police civile ku nekk dina fa ne ku bëgg jàmm na nga ñëw seetaan jàmm ñibbi ku bëggul jàmm nag ah di nga fa fekk ñoo xam ne ñoom it ku bëggul jàmm ñu defanteeg ak yow loolu rek la ñaan li ñuy xale daal mooy nañ xam ne arène nationale bi ay milliards la si président de la République def. Mhm. pour Sénégal. Mhm. ministre des sports sonn si muy Matar Ba. Mhm. ñu fay bëree mbëri di fa am dara. mbëri nag bu leen kenn yàqal. seen liggéey. am leen ful ak fay ku nar a yàq seen làmb ngeen ko toogal. ñun daal dañuy bëri yàlla mën nañu may ndam yàlla mën nañu xañ ndam. ban message ngay lancé jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy mbokk Alaaji Papa Dieng que ku ne Alaaji Papa Dieng ne fukki penc ñaar yi nga xamante ni moo nekk Ndakaaru. Alaaji Papa Dieng jarul sax woote Dakar. képp ku dëkk Dakar. bokk fukki penc ak ñaar. fii ba tubaab jalaaw fu mu munti ne. di nga ñëw si bés bi parce que nga xam ne papa Dieng moo xewle. te boo ko mos xew boo ko mos a yëgal sa xew. kenn du ko fa njëkk. man barki démb rek ba ma Fallou Ndiaye tuddee làmb li traditionnel. dafa feebar mais dana ma damay dem par force. yow sama rakk nga. fooy dem war naa nekk sa wet. kon mooy wane dafa gëm amitié. dafa bëgg ku ko yëg. dafa bëgg ku respecté. kooku mooy El Hadj ban message ngay mujjee joxe ci li nga xamante ni moom moo wax. xanaa ñaanal promoteur bi jàmm. Mhm. ñaanal ko aussi wér ak gudd fan. félicité ko aussi li mu xool alaaj Papa Dieng tuddee ko làmb mhm. ñu ngi leen siy gërëm di leen sant parce que boo leen ko tuddee làmb Sénégal ngeen tuddee làmb mhm. ñuy ñaan nag képp koo xam ne xale nga woon wala nga mënt foo mënti ne tey nga nekk kilifa Papa Dieng bësam bi war nga teew si bés ba ñuy ñaan mbokk yi mbokk mi jarul woote parce que mbokk képp kuy mbokk Papa Dieng nga dem si kër Papa Dieng ànd ak moom ñoo làmb incha allah ñuy ñaan ñu ñëw jàmm bisimilahi rahmaan ñibbi alhamdulilahi rabi alamin mhm. ñaanal ñëpp wér kenn bañ ko euh, wuute yàlla may ñu bés bi ñu dem fa jàmm ak salaam mhm. ñibbi si jàmm ak salaam ñuy ñaan nag képp koo xam ne yaa ngi si njabootu làmb mhm. na nga ñëw si làmb ji jàppale Papa Dieng parce que yàgg nga ko déglu Sud FM par altine wala dimanche. Mhm. wala nga seetaan ko 2 mhm. muy wax luy làmb. Mhm. nga kontaan. sopp nga ko bëgg nga ko. góor góorgóorlu nga ñëw si làmb ji. waaye bu ñëwee si làmb ji tamit ñu ñu ñu ñu takk lii. lii tam baax na si loolu. bu ñëwee nga def nii. ñu toog raxasu. seetaan làmb si jàmm ñibbi si jàmm.